environnemental ñëw di indi suñu ziar ak suñu cant euh, si xalif général Thierno Mountaga Bachir euh, Serigne Mountaga Bachir ñu koy sant bu baax a baax euh, di ndokkeel si bis bu mag gii bisu màggalu Touba ah si suñu biir waxtaan yëkkati na kàdd kaddu cant ak gërëm président de la république Macky Sall ma seedal ni sëriñ bi que laata bu ñu jëlee pouvoir bi ba fu ñu toll nii loxoy président mosul jóge ci ma dugal na ma ci station bu nekk maa ngi ko ci sant bu baax a baax ci kóolute boobu mu bëggoon ko seedal sëriñ bi di diggante moom ak président de la république di ko si sant bu baax a baax ñu nit ñu ñëw fii si turu conseil bi di ko ndokkeel si bis bi bi si màggal bi mais aussi di sakku ñaan si Sénégal ak moom sëñ Mountakha nu mu ko defee di ko continuer di ko def ba fu ñu toll nii a ah, ñu ñaan ko it ñun si suñu bopp nañu ñaanal si màggal gi ak si bis bi mais en même temps ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñaan yàlla yàlla nañ yàlla may kattan yàlla may ko kattan moom sëriñ bi yàlla yàggal ko suñu kanam lool lool lool ndax liggéey yu am solo yi nga xam ne mu ngi koy def si Touba. yàlla dimbali ñu mu yeggal ko si jàmm ak salaam beneen bi mooy kantu cant rek comme ni ma ko waxee cant ñëpp nag santoo ko moom sëriñ bi si liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyal mu ngi koy liggéeyal lislaam yëpp mu ngi koy liggéeyal adduna sépp si wàllu bu nekk nag si wàllu lislaam bi si wàllu sécurité bi si wàllu jàmm ji fépp fi nga xam ne daal yëngu-yëngu am na sëriñ bi yëkkati na si baatam joxe ne foofu ndigal ba jàmm sax si Sénégal sax si Afrique bi maa ngi koy si sant bu baax a baax moo doon kaddu yi nga xam ne daal ñëw ñëw nañu waxtaan ak moom sëriñ bi tey euh, si bisu magal bi. Euh, en français en français. Euh, j'ai conduit une délégation du conseil économique social et pour venir partager avec le khalife général sëñ Mountakha Bachir euh, ces moments importants dans la vie de notre société dans la vie du mouridisme dans la vie de l'islam des moments particulièrement importants que ce quai vit que sont effectivement donc le Grand Magal de C'est un événement majeur, on l'a toujours rappelé, un événement aujourd'hui qui a fini donc de concerner le Sénégal qui a fini effectivement de concerner toute la Oumma islamique et naturellement nous sommes venus aussi donc apporter euh, notre notre ziar, notre, notre venir aussi solliciter des prières pour Le travail que le président de la République Macky nous a confié au niveau du Conseil économique, social et environnemental, mais aussi solliciter des prières bien évidemment pour le Sénégal, solliciter des prières euh, pour avoir un hivernage pluvieux, mais surtout qui sera couronné effectivement de beaucoup de succès dans le cadre de la campagne agricole dans laquelle euh, donc le Sénégal est aujourd'hui. Donc c'est globalement à ce niveau-là que nous sommes donc euh, voir euh, donc le Khalif général qui nous a accueillis euh, comme d'habitude euh, en, en, en, patriarche, en, en, marabout, en père, mais surtout en guide et qui nous a témoigné aussi de son soutien effectivement et de sa disponibilité. Et, donc naturellement, je n'ai pas manqué de remercier encore le président de la République Euh, devant le calife général, compte tenu bien évidemment donc de leur relation particulière, pour témoigner et remercier le président de tout ce qu'il a eu à faire effectivement donc pour moi et pour ma famille. Merci, Merci beaucoup.